waañu cofeel di waañ bi nga xamante ne mooy toggal gani soxna si di soxna ayda di toggal waa kër gi ak mbokk yee ñëpp ñu doon présenté tey lii nga xamante ne moo jëm ci ndékki yi deux jours après la màggal ndax boobaa léegi saa su ne dañuy defar ay miss yu giléem ak i nag ak lapin ak dend ak oie ak kaay ak naat ak lapin di ko defar di ko jox gan yi nag ñu toll ci ñaareelu bés bi nga xamante ne mooy ginnaaw màggal gi fii ci ngaabu kër Soxna Aida ñu waajal ndékki yi nga xamante ne ndékki daanaka mën nañ ne lii ndékki royal la ndax lii nga gis ay giléem la waaye méchoui la li nga xam ne moo ne ci plateau bi méchoui nag la ñu tojat ko moo tax dog yi toll nii mu toll moom ñu ci santaat sëriñ bi bu baax waaye jëf ji li muy rëy rëy lépp soxna si la ndax moo am yéene bi moo ko bëgg dénku ko di ñu ko doxloo te yombalal ñu ko lool moom day lii day wane wanewaat ni rek màggalu sëriñ tubaa gii saa su ne mu wane ci loo xam ni kéemaan la ndax ñun kat amuñu lu dul sëriñ tubaa te sëriñ tubaa du ko fiy jóg te lii daa bokk ci li nga xam ne day wane ni sëriñ tubaa kenn la day wane ni suñu sang bu tedd bi moom sëriñ Béthio du ku fiy jóg ndax sëñ Béthio li mu def ku fiy jóg munu ko te lii daa bokkaat ci màndargaay wane ni bu ñu nee sëñ Béthio ñun suñu sëriñ du ku fiy jóg lii daa bokk ci li koy wane waat ba tax na gaa ñi nañ xam ne noppeeguñu añ yaa ngi ñëw lii ndékki la reer yaa ngi ñëwaat te lépp ay surprise la ñu ngi fi ci biir kër soxna Aida ñu ànd koox ñom universel Cheikh Béthio Kaïré and ko mbokki taalibe yëpp wa Gosaas yi waa Fatick yi waa yi ñom universel Mamadou Mbodj euh, euh ñom masamba Cissé soxna yi patisserie waaw mu melni yëf yi mom kéman la waaw ñoom ñëpp ñu ànd liggéey bi wax dëgg yàlla boobaa léegi ñu ne ci lii nag ñu bari ñu ngi naan am naax amul waaye lii ñu tiim du kawsu lu ñuy xewloo la ku gis nataalu sëriñ bi xam ne ñu ngi fii ci biir cant gi ñu ngi ngaabu kër Soxna Aida ñu ngi santaat sëriñ Touba bu baax ma bàyyi université Cheikh Béthio Kaïré moom mu am loo xam ne da ko ci rek tàbbi waaw waaw jërëjëfaat Serigne Béthio waaw sëriñ waaw jërëjëfati Serigne Béthio Serigne Béthio sa jaamu Serigne Saliou jërëjëf jërëjëfati Serigne Béthio soxna Aïda Saliou Thioune mu yàgg fi loolu te gën a wér waaw di santaat comme ni ko universel Lamine waxee rek lii ay misu yu gileem la mel ni du gileem yee ñu waaye xol bi ko jëf moo ñu yéem ñun de santaat nañu Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ci bi ñu Serigne Béthio booleeg soxna Aïda Saliou Thioune ndax mel na ni yoon wi ñu nekkat day yoon woo xam ne ni yoonu bëgg Serigne Touba la te ku la gën a bëgg sëriñ Touba dalaa raw te moom mu doon koo xam ne nii ñëpp xam nañ ne lañu ñu sëñ Béthio waxoon firiku na ndax waxoon nañu ne yéen day maa leen booleeg moom ndax damaa bëgg ngeen liggéeyal Serigne Touba moom nag yor na xol boo xam ne nii ci liggéeyal Serigne Touba yor na xol boo xam ne ci jëfal Serigne Touba yor na xol boo xam ne nii ci def la tàggat la ci bëgg Serigne Touba moom day képp ku am Serigne defal la moom. war ngaa sant sant nañu sëriñ Béthio bu baax ci defal gi ñu defal ñu ànd ak ay Aïda Saliou Thioune ñun ay murit lañu ay murit lañu bëgg doon bu dee xas yi tàggat nañ ci xeet tàggat goo xam ne nii wax dëgg yàlla ñeewuñu ñu suñ morom bu dee jëfal sëriñ Touba ak sëriñ Touba li mu wax ci màggalam geeg yeneen jëf yi soxna si xol bi mu ci yor wax dëgg yàlla tax na ñeewuñu kenn sunub sëriñ mat na sëkk lim doon sunub sëriñ bu dee sëriñ njariñ ndog lañ koy doyee sunub sëriñ am na njariñ lool soxna Aïda Saliou Thioune yërëm nañu ñoo ngi koy sante Serigne Saliou Mbacké mi ñu booleeg moom ñu ci daara ndax lii lii lii lu waay tënk tënk tënk xam na lii sëriñ Touba bëgg na ci ndax màggal gi moo ci woose ne na ma ci waay defal lépp lu mu mën lu waay mën na ko ci defal waaye ku ne xam na ne lii nag moom misiwul Serigne Touba ay gileem ci màggal gi man nag gisee su ma ko nag maa ngi koy doog a seen tey te loolu mi nga amee fii ci Soxna Aïda Saliou Thioune loolu moo ñuy wan ne xolam bi kat Serigne Béthio na ko soxna Aïda salu jun xolam bi, serigne Béthio defar nako ko ngi ñaan yalla na fi yag lool te gën a te ji bu ne ñu gis lu ko fuuf ndax mom day xolam la sëriñ Touba yemalewul fenn xolam bi, la sëriñ Touba yemalewul fenn yalla na fi yag lool te gën a wér ànd rakam yi and ko taalibe mi and ko njabotam gi ñoo ngi ñaanal soxna Adja salu jun mu yag fi ñoo ngi ñaanal soxna Adja soxna soxna bodor salu jun mu yag fi ñoo ngi ñaanal njabotu serigne gi di len ñaanal te ñaan gépp ñu koy ñaan Soxna Aïda Saliou Thioune yàgg fi moom jëmi Serigne Mbaye Thioune jërëjëf Thioune macha allah comme niñ leen ko waxee woon boobu ba léegi ñu ngi woon fi nga xamante ni bii moo di ngaabu rawatina fi nga xamante ni moo di si soxna Aïda fi mu nekk doon fi defoo li nga xam ne bii moo di cérémonie bi macha allah cantaakun yëpp wàccoon fi mu nekkoon lu neex macha allah comme niñ koy defee saa su nekk waaye nag dañuy bëgg a xool li nga xam ne moo di impression yi nga xam moo di taalibe yi ñu benn jëwriñ sëñ bi lay nuyu maa ngi leen di maa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi sant bu baax. maa ngi tudd jëwrin universel Djiby Sy. Djiby Sy macha allah tey noo gisee li nga xamante ni moo di cérémonie officielle bi. ah cant rek ab cant rek euh, màggal gi moom ku ne xam na ne ab cant la ba tax na euh, yëf ku ko fekkee xam nga ne lii sëriñ bi da cee wanewaat boppam. waaw mbég bi feeñ na fi taalu euh, taalube gi feeñ na fi te yéene taalube yi ci liggéeyal sëriñ bi fësaat na fi waaw ba tax na ñu ngi ciy santaat bu baax sëriñ Saliou Mbacké.

le même jour, tu te réveilles à 6 h du matin, tu parcours des milliers de kilomètres. Elle, elle est allée à au moins 700 km de Bamako pour goûter à Aïnak. Elle a fait ce chemin-là, elle a fait ça en au moins 12 h ou 14 heures de route. au même moment, elle repart pour faire 2 heures ou 3 heures de route pour aller à Aïnak. elle a terminé peut-être à 3 heures du matin 3 heures du matin elle a fait fanane, fait bobu ya xam te na ñëwaat ba Jema pour xol ci ay nak elle a quitté kay 2 h du matin ci guddi gi la dawalé ba 14 h pour yexi wat ba mako à 15 h imagine toi mu ngi won ci daralu lu di wuti wat ay nak té ku xam dëkk bobu ni mu mel xam tal yi ni mu mel xam choona bi mu daj ci jënd ji nak yooyu non di nga fonk soxna ci nak yi muy joxé ndax li mu daj ci jëndum nak bi elle a passé 10 jours yo xamné non stop elle fonctionnait H24 loolu man kenn waxuma ko mako fekké je euh, suis may bi ci gi ma am chance su fekkee loolu permettre ma prise de conscience ci liggéey bi que liggéeyal sëriñ soxna si kuy wax ci moom rek da nga koo Je suis xamul. waaw waaye waaye bettuñu ndax lii ne comme moom je suis sëriñ Béthio bu ko dalul won mané bon mom du serigne waaw ñong koy ñaanal euh, euh, te liggéey bii mu sumb muy liggéeyal sëriñ bi te sëriñ bi digal ko ko mu jëlee ci ndam yu fës waaw tey rafet nañ ci njort ndax moom de liggéeyal sëriñ Tuubaa rek moo ko ñor te am na lu ñu ci xam waaw ñun nag sëriñ becco moo ñu jël boole ñoog moom dañoo jébalu ci sëriñ Béthio sëriñ moo ñu yar teete ñu ba toll nii ñu toll waaw dimbali ñu ba ñu doon ay kilifa ndax bi ñuy ànd ak moom ay tuut tànk la ñu woon waaw tey nag am njaboot may ñu ay soxna am may ñu njaboot tudd suñuy doom may ñu ay kër ba tollu jamono mu woo ñu ba ñu ñëw mën nañu boole naa ci soxna su universel soxna Aida képp ku bëgg a liggéeyal sëriñ bi nanga ànd ak moom ñun keneen waxul ñu dégg ci sëriñ Béthio la ñu jébbalu jébbal ko suñu bopp àdduna ak àllaaxira moo ñu woo ba ñu ñëw nañu boole naa leen soxna Aida Diallo waaw. macha mu nekk kàddu yu rafet euh, ñu bëggoon a xam yan conseil ngay dolli li nga xamante ni moo di cantaakoo nii. ni ko soxna si waxee rek liggéeyal sëriñ bi nañu ne ci jëf ji te bàyyi wax ci amul benn njëriñ.